asalaamaaleykum mbokk yi man la seen xarit Mariétou Sarr si Gambian Talents Promotion soo leen mënee fàttaleku ah, benn month si gannaaw ñëwoon nañ fii si Ka Family bi pour ñëw ah, seet lan moo xewoon fii xamoon nañ ne ah, safara moo fi xewoon laa dañ am lakalaka bu ñaaw bu nga xam ne ñu ne seen benn seen broda bi ku tudda ah, Dadika moo lakkoon seen kër bi ñun nag waa Gambian Talents Promotion dañ fi doxantu woon pour seet naka la lakka bi meloon te wanoon nañ leen yéen mi nekk ah, di seetaan Gambian Talents Promotion lan moo fi xewoon te buñ leen wanee loolu dañ amoon mi account bi nga xam ne nit yu nekk si diaspora bi ak ñu nekk Gambie ñu nga xam ne dañ bëgg a dimbale Kah family bi dañ dañ donate gars yi bagage so fi mu nekk tey dañ ñëw si Kah family bi pour ñëw donate si bagage yooyu bu ma jógee wax ak seen broda bi wan nañu ne nit yu bari ñu nga xam ne si famille bi lañ nekk te dëkkoon nañ si biir néeg bu mag bu nga xam ne moo ñeen ñeenay tëxu nañ pour luwaas pour dem nekk beneen place seen sista bi moom tam mu ngi fi broda bi tamit moom tam mu ne mu ngi ah, luwaas beneen kër fii foofu lam stay so loolu moo taxoon tey Gambian Talents Promotion ñëwal leen fii pour donner leen ay bagages Gambian Talents Promotion comme ñu ko dee defee rek ñu nekkuñ de eh, nekkuñ ñi nga xam ne dañoo ñëw gas nit xam li si la ngeen nekk xam loo nekk seen situation dañ leen dee dimbale tamit suñ luñ mun loolu leen dee defar ah, nit yi fi mu nekk tey ah, ñëw nañ fi ñun waa Gambian Talents Promotion

18 bi den génne bu ees muy Gambian Talents Foundation moo naam képp koo xam ne rek yaa ngi am naxar mbete it yaa ngi am loo xam ne jaaxal na la mbete yaa ngi nekk ab musicien mbete yaa ngi nekk ab politicien mbete loo mun a nekk rek te da nga ñuy dimbal ñun di leen si def suñu wareef bu baax a baax a baax moo tax it nag euh, ñu set up Gambian Talents euh, promotion maanaam Gambian Talents euh, foundation bi ku jàppale nit yi réelewuleen mbir ne bu Musa Afia Ngum gaañoo demoon neen ba këram euh, donate ko foofu noonu moom it euh, about 75000 dollars boo xam ne euh, ay nit yoo xam ne ñoo nekk si diaspora bi jàppale nañ ñu organisal ko programme si Alien Franco euh, ki nga xam ne mooy kitaabu nekk euh, comédien moom tamit ñu utaloon ko GoFundMe account boobu noonu nit yu baax nekk si diaspora bi ñoom ñu jàppale ñu ba euh, tey fu nekk nii macha allah ñu dimbale woon ki nga xam ne mooy kitaabu emul foofu noonu rek ñu ngi dimbale ñu baree baree bare si société bi ñu ngi dem si provinces bi di dimbalee nit yi di leen may si yëre yi nga xam ne ñu ne suñ ay ndaataango suñ ay xarit jox nañ leen ko. waaye rek Gambian Talents Promotion den dégg benn xibaar boo xam ne euh, ñu nit euh, métti woon nañu lool muy ab lakkalak la boo xam ne amoon nag si ka famille bi nga xam ne mooy bu Serigne Maska mu nekkoon Serigne bu mag a mag a mag a mag euh, ñu nit ñu ne déedéet foog rek ñu ñëw ñu def suñu wareef as media house ñu bëree bëri dañ leen naa xamee si tas xibaar waaye ñun dañ ñëw in a different ku ñëw nag jàppale askan bi naka lañuy ñuy jàppale askan bi ñu create a GoFundMe account ñu am nag ay nit yu baax nit yu nekk si diaspora bi ñoom it ñu ñëw jàppale ñu ba nga xam ne raise neen 500 US dollars uh, mu nekk soo ko calculé si xaalis si Gambie dina nekk about 20 000 dollars bu boobaa 23000 dollars ba te 22000 su ko defee rek ñu ñëw jox ko li nga xam ne mooy famille bi waaye bilif ne ne famille bi tamit am neen ay needs maanaam am neen ay soxla ah, duñ em rek si jox leen li nga xam ne mooy xaalis mbéte ah, it yeneen ak yeneen ñu ne déedéet xaaral ñu jënal leen ay jumtuwaay xaaral ñu jënal leen ay lekka yi nga xam ne ñoom it dinañ ko mun a def parce que lii ku mu dal ah, dina la métti dina am yu baree bëri yoo xam ne manqué nga ko waaye mbokk yi comme ni ma leen ko waxee yéen ñi nga xam ne yéen a ñooy seetaan Gambian Talents ñu ne GoFundMe GoFundMe bi nga xam ne moom lañ créétal ka family bi emut fii GoFundMe ba léegi mu ngi still on dañ ñëw rek indi la bum leen ab tuut bi nga xam ne moom leen dajale di leen ñaax yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si diaspora bi tey sa yàlla may na leen lu ndaw at least ngeen bokk ko ak ka family bi because lii métti na gis ngeen building bi yëpp a yaaxu ah, lii nag mu nekk loo xam ne kenn ñaanut ko yàlla ñu leen ah, wax ne yenn gars yi yokk muñ yenn yëpp euh, toog be ñu fekkee wate seen kër nun ko buggee bu boobaa rek ma bàyyi ki nga xam ne mooy suñu broda mu introduce boppam mu wax ñu naka la filee initiative bi waaw man maa ngi tudd euh, Momadou Koraka euh, di doom ci Alhaji Oustaz Maska ñu dëkkoon fii nii si néeg bu mag bi alright Kora um, bi nga xamee ne incident bi xappul na Gambian Talents ñu ne xaaral rek ñu utal leen li nga xam ne mooy GoFundMe bi uh, képp koo xam ne rek mu ngi Facebook ñu donate uh, ñu am ñu baax ñoo xam ne donate leen so tey nag luñ fi indi bariwul am na yoo xam ne ay yëre la yeneen ni moom ay saaku maalo saaku liñoŋ bi doon diwlin ñu indi la saaku sukur indi leen ay suuy nga xam ne di ngeen ko mën a use soo leen a root météo soo leen bëggee def yu fi togga ak ñoom seet waaye bu léegi rek euh, ba léegi caméraman bi naa ko wax mu ñëw fii euh, ñu wax la naka nga fii lay initiative bi waaw kontaan naa si trop euh, kontaan nañ ci bu baax a baax parce que xam nga ondo nga nekk si naxar xam nga ay nit ñëw ah, di la dimbale bokk ak bokk ak yow naxar bi rek xam nga loolu rek dafa dafa dafa dafa fiixal sa xol xam nga daf laa daf laa daf laa bégal loolu soo kontaanee seen initiative bu baax a baax a baax a baax yéen waa Gambian Talents di leen wax ne si ah, kaw si kanam rek incha allah si lu baax yàlla baax la daal yàlla yàlla xeeb tool yi. waaw ah, ñu nekk fi ba léegi rek ak suñu beneen sista ah, ñu bëggoon a déggee si moom rek naka la fiilee ak li nga xam ne loolu leen fi indi naka nga tudda asalaamaaleykum maa seen taxawaay maa ngi tudd Safika. Safika mm-hmm. Safi loo mën a wax askan bi nga xam ne ñoom ñoo ñu ah, jàppale. maa ngi leen a gërëm ñun ñëpp maa ngi leen ku ci def ki def ci ci am éene te mënut a ñëw ak ñu ñoo ñaanal yëpp ñu ngi leen a gërëm parce que mu xewee ba léegi lu nekk gis nañ ko lu nekk ñëw fi lu nekk réussir nañ ko te. yëpp si seen mbaaxaay rek la ak seen yëg ak seen yërmande so yéen mi nga xam ne yéen la indi lii comme bi wan ñëwoon ngeen fi te ngeen ñëwaat def bu ñun yëguñ ko sax waaw nga xam ne loolu seen mbaaxaay la ak seen ité ak seen ine bu rafet si ñun parce que seen bi ngeen def nii wax dëgg ne yàlla ñun ñëpp kenn yëgu ko seen ñëw bi sax daf beeta waaw ñu ngi leen a yërëm di leen santa di kontaan si bagage ngeen fi indi nii parce que lii xaalis la yëg bi rek sa dafa neex waxuma laa nag ngeen dajale create account ñuy dugal si seen xaalis boo xam ne ñun sax xamuñ leen su apprécier nañ ko torop torop torop torop kontaan nañ si torop torop ñaanal yàlla yokkaleen ngeen yëg ko apprécier nañ yëpp yëpp yëpp the family man maa fi nekka right now maa nekk si kër bi fii nii waaw ñeneen suma cousin yi fi dëkkoon su man maa fi nekk ak suma niis bi nii waaw ak suma doom bi ñun ñoo fi nekk waaw jërëjëf Safi euh, jërëjëf bu baax a baax a baax yéen a ko dégg kooku mooy Safi moom moo nekk si kër bi right now euh, comme ni ma leen ko waxee rek bu nekkee yaa ngi jos doog seetaan ñu ngi fii si pipeline si ka family bi ku jàppale gars yi parce que ñoom it amoon neen ab naxaar boo xam ne seen kër bi euh, lakka xam naa ne yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan yéen a ngi wax ñan ñëw indi donation bi Gambian Talents Promotion moo fi ñëw tey ku donate li nga xam ne mooy um, ay food items ak yooyu si kanam tuuti dinañ dem wanal leen ko ngeen gis ko waaye ba léegi rek comme ni ma lañ ko waxee su nekkee ne yaa ngi seetaan donate loo woon ba te donate nga sax waaye loo donate fil nga ne ah man di war naa gën a jàppale nga gën a jàppale parce que Louga yi ñiit fu mu nekk bari na ciment ak yeneen ak yeneen ko gën a samp gaay seen kër bi mu dellu si nu mel météo nu ko daaxa euh, bu boobaa di leen ñaax di leen wax ne ngeen gën a jàppale ñi nga xam ne ñooy Kah family bi comme nu ma leen ko waxee rek Gambian Talents Promotion fu mu nekk nii nag euh, nekkul rek télévision boo xam ne dañuy toog euh, di leen indi ay xibaar dañuy génn di dugg si biir ñiti di seet lan la ñiti di def loo xam ne maanaam ñiit neen ndimbal ñu nit ñu def ko moo taxit rek ñu create on that GoFundMe account si suñ Facebook page bi ak suñ njiita njiit bi nga xam ne mooy Mr Pa Ousmane Diouf nekk foofu noonu si Amérique jàppale ñu ba tey euh, luñ am ni ñu mun koo am di ñaax Gambien si di leen wax kër bi ay Gambien sa fi dikka te comme nun tuddee suñ boppa rek Gambian Talents Promotion tur day borom kon yéen it ngeen jàppale ñu ñu jàppale suñ brothers and sisters yi nga xam ne ñoo dëkk si biir kër bi ñu euh, nii wante niis bi moom it mu wax ñu naka la fiilee si initiative bi comme nuyu naa leen bu baax a di kontaan bu baax a baax si Gambian Talents Promotion lii lu rëy la ñu am naxar bi nii ngeen ñu bokkal ñu ko waa ab abroad def ci seen doole def ci seen mën-mën loolu yëpp lu rëy la di leen ñaanal bu baax a baax daal di leen gërëm yéen itam yéen Gambian Talents Promotion ci kaw si kanam la alright euh, jërëjëf bu baax a baax a baax mbokk yi ñu lii leen mënal askan bi comme ni ma leen ko dee waxee rek ñun leen believe so much in transparency moo tax tey ñu indi li nga xam ne nag mooy vidéo bi ku wan ko askan bi su ko defee ñoom ñu mun a gis li nga xam ne loolu lañ def ñu rees li nga xam ne nag mooy 500 um, dollars 500 euh, boobu noonu nag ñu indi ko si famille bi bu boobaa ñu jóg wanal nit yi nga xam ne ñoom ñoo ñu donate ñu gis naka leen defee xaalis bi ñu indi leen li nga nga xam ne mooy thirteen thousand dalasis yéen ne ko gis ne thirteen thousand dalasis si Gambian Talents account bi ñu génnee ko ku indil ko li nga xam ne mooy ka family bi su ko defee ka family bi tuuti na nag euh, ñoom ñu jàppale ndeku si su ko defee yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan loo si mën a yokka loo leen si mun a am rek ka famille bi ñu ne dinañ ko euh, jël tey dinañ si bëgg bu baax a baax a baax ba léegi rek euh, broda Kora ñu bëgg rek nga jox ñu number si nga xam ne am na ñoo xam ne bëgguñ ta diil ak Gambian Talents hit nag daa rek ñu ngi bëgg a wax ak famille bi ak yooyu noonu nga wax leen number yi nga xam ne dinañ dinañ leen si mun a amee. waaw mun nañu to call man ci number B 783 6996 uh, ak suma number sista bi tamit uh, uh, 394 9944 alright uh, kon nag yéen a ko dégga nomba bi mu ngi noonu uh, saay boo leen koolee rek di ngeen mën a am kafaam lu métti soo leen jokkoo ñun si Gambian Talents Promotion si suñ Facebook page bi métti si suñ WhatsApp métti soo leen ñëwee suñ office bi si Gambia si uh, boori Alien Franco rek di ngeen ñu am next to IEC building bi saay boo leen ñëwee rek loo leen mën a indil kafaam bi gars yi dinañ ko jot Gambia si kaw si kanam ak Gambian Talents Promotion ñu daal ñoo fi nekk ko askan bi bu boobaa rek ma hand over li nga xam ne moom leen jota Eh, dajale ci suñ sista bi di Safi eh, gis ngeen lii la Gambian challenge jox ki nga xam ne nag Safi di magi kër bi kon nag Safi lii leen leen jox jërë ngeen jëf ngeen jëf lii lu rëy la yéen ko xeeb wa di lu tuuti thirteen thousand dollars si plus bi comme ko waxee rek lu rëy la mm. rëy rëy rëy rëy la mm. su doon one dollar appreciate lay ñoo ne definitely you leen anything wax yàlla seen xol rek ak seen xalaat bu baax so maa ngi leen ñaanal si barke Ramadan bii nii si fukki fan yi mujj yi nii ñu nekk képp koo xam ne dugal nga si sa dalas sa xaalis sa xol sa xel sa everything loo ci def rek ñu ngi laa ñaanal yàlla fay la ko ci weer bu màgga bii nii yàlla yokkaleen ba ngeen yëg ko yàlla may leen bu defan ku nekk xam nga lu nekk sa xol bi yow na la ko yàlla defaral di sant di leen gërëm di leen ñaanal jërëjëf euh, kon nag yéen ko gis thirteen thousand dalasi la bu boobaa rek ma jóg euh, wanal safi ak ay mbokkaam li nga xam ne loo leen fi jota ini su ko defee askan bi gis ko comme ni ma leen ko waxee rek mun ngeen naa gën a yokk li nga xam ne mooy donation bi mu ngi still on closing ko ñu bugg rek ñi ti gën a jàppale ka euh, family bi si seen métit bi neen bi gaay am muy laka-laka bi nga xam ne métti na lool kon ñu jóg tuuti rek ma wanal leen ko safi ok lii moom saako pompiteer la. Ini gis waaw waaw saako pompiteer benn saako ok Bi saako liñoŋ la. liñoŋ la waaw moom leen indi léegi nii. xam mhm. ah, ne ne tamit di bale. la mhm. ah, ah, ku pompa. ñu indil leen ñaari mook ak ñaari bale. waaw ñu indil fu nekk ñoom si tàngaay bi di ngeen soxla paan ñu indil leen tamit li nga xam ne mooy soo parce que di ngeen bugg ko raxas ak yooyu noonu root waaw soo yi nag foo la waaw ak saaku sukur benn saaku sukur ñu indi tamit benn saaku maalo ak benn bidon ngi diwlin lii moom bidon ngi diwlin la ak saaku sukur ñu am tamit ñeneen ñoo xam ne jàppale nañu ramu su ko defee lii ab yére la askan bi bu nekk yi na ngee seetaan fii euh, ñu nit ñu def li nga xam ne mooy yére mooy yére yéen a ko gis nii lii ab xaftaan la am suñ beneen broda bu baax bi ñoo wax dabaax mhm. dabaax moom moo ñu jox lii waaw ku ñu nit ñu dooli ko si mhm. waaw dañuy wane rek ku gars yi xam kay waaw teraanga defee lu baax dañ ko wane waaw lii tamit xaftaan la mhm. ñu ne xaaral ñu dooli ko si lii ab baag la ñuy dem school ak yooyu mhm. bii ab poos la bu jigéen yi bii pijaamas la ku xale bi dégg neen ne am na xale bu fi nekka mhm. waaw lii ay yére la yi mhm. tamit tibéy la yi baag la ku school yi baagi xale la yi mbaxana la ku xale li sweater la in case ñu nekk si time seeda waaw lii tamit ab yére la mm-hmm. waaw bii ab jacket la bii ab jacket la mm-hmm. bii ab simis la mm-hmm. bii nii tamit simis la waaw yii iya, tamit ay ngeen sola waaw bii ngeen sola bii nii ab baag la waaw lii mbaxana la ku xale mhm. bii tamit mbaxana la bii tamit ab sipa la waaw mhm. skaat ku xale yii ab simis la ku mhm. boy si bii moom ab mbaxana la bii moom ab yére la ko euh, sedda bi bii nii tamit euh, moom euh, sport shoe la ko koo xam ne mu ngi dem football ak yooyu noonu waaw bii nii ab tibee la ko gis ñi nga xam ne ñu ngi liggéey office su nekkee yeneen fi amee góor yi liggéey office yooyu bii nii moom ab sweater la waaw daala bu ñu wane woon noonu moo nekk nii yooyu tamit beneen daala la pour ñuy liggéey office ak yooyu noonu bi la waaw bii tamit sweater la bii jean la waaw ku xale bu góor bii ab top la ku xale bu jigéen mm. bii ab cardigan la soo leen amee ibaadu ak yooyu noonu bii nii simis la ko góor waaw bii tamit yére la ko jigéen waaw bii daala la ko xale buy dem school ay mbaxan defe la jiin la ku ay góor waaw bii ab yére yu ndaw la ko xale bu jigéen <coughs> bii nag euh, yére la tamit ku góor simis ku góor

sweater la sweater la bii nii ab gypsy skirt la bii nii sweater la ku sedda tamit ab simis la ku xale bu ab jean la bi moom comme soo leen amee nit koo xam ne mu ngi togg ak yooyu noonu rek si biir waañ bi ak bii ñoom ñoo ànd waaw bii ku sedda bi la waaw joogin la waaw bii tamit ciin la waaw bii tamit daala la kuskus bii moom simisi góor la waaw bii nii tamit lifin la yëre seen la bii nii tamit yëre la yëre bii nii tamit ab daala la waaw bii nii tights la bii nii tamit simis la bi ngeen naa gis nii bu blue bi tamit simis la kon damu ñu jëlaat ko dugalaat ko ci biir pare bi ci famille bi adama waaw kon mbokk yi eh, lii leen indiloon Kaf famille bi waaye comme ni ma leen ko waxee rek ñu ne nettali si laame yu borom la daaxee yéen a dégg waa Kaf famille ñu wax loo xam ne mooy jaay seen métier yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di seetaan noo leen mën a dimbalee famille bi rek ngeen dimbale koo famille sa fii sa final words balaa ñuy dugal si biir eh, ko variété waaw comme ma waxoon rek bagage yi bari nañ torop torop torop torop torop ñu leen a ñaanal su man on behalf of the Kaf famille maa fi nekk man ñu ngi la ñaanal ñu ngi la gërëm waa di apprécier li ngeen fi indi nii yëpp apprécier nañ ko comme su ma waxee euh, bi passé rek seen xalaat ngeen toog xalaat create GoFundMe boo xam ne ñun sax yëguñ ko yàlla ma tiim ak weeri koor gi nekk ni ñun yëguñ ko ngeen surprise yi ñëw indi seen bagage indi ay lekka ay buntukaay yi nii yëpp pour ñun dëgg dëgg amul luñ leen wax waaw ñu ngi leen a gërëm di ñaan yàlla lii moom yàlla bu mu am feneen waaw yàlla bu mu am feneen yàlla bu am feneen soo leen ko joxee daal da nekk ci bànneex ak feneen waaye donc façon di la waaw soo ñu ngi leen a gërëm di leen sànga on behalf of the Kah nekk si kër bi maa ngi leen a gërëm di leen wax thank you thank you thank you yal leen yàlla fay jërë jëf all right Gambia yéenay seetaan Gambian Talents Promotion comme nu ma leen ko waxee rek euh, GTP mu ngi fi nag euh, ku euh, tas xibaar waaye it emoon si tas xibaar bi dañuy génn si biir société bi di leen indil lépp loo xam ne nit yaa ngi koo jànkuwanteel di génn di bugg a xam lan la ñit di jànkuwanteel ñu ne ñu saafara ko moo tax it ñu indi GTP foundation bi yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan dee naa dimbale GTP foundation bi su ko defee ñu def yeneen ak yeneen ak yeneen Gambian Talents Promotion 2006 depuis ba léegi ñu ngi yëngu si yu mel nii waaye nag fu mu nekk nii gën leen see xuus ngeen gën a jàppale comme ni ma leen ko waxee rek euh, programme bi mbéte yit euh, li nga xam ne moom leen sos ak ka famille bi jeexut kër bi ñiit nañ yeneen ak yeneen ak yeneen kon gën leen naa jàppa ñu gën a dem si kanam ñu bàyyi Mariétou rek mu gën ñoo indil euh, waxtaane jërëjëf madame Samba comme nu mu ko waxee rek ah, ñoom lu gaay soxla bari na torop right now yaa ngeen gis seen kër bi um, yepa yepa lini yepa yahu so guys ñu ngay try pour raise building bi right now dinañ dem ci biir ñu set condition bi nu melon before ak now last time bi gisoon ngeen ne seen bagage yëpp a ngi woon si biir néeg guys send bagasi dafa lakkoon gay seen bagage yi wanag bi ah, seen saal bi yëpp right now fu mu nekk nii ñu ngi try to raise ah, building gars yi ñu ngi semaine am semaine ay bloc daal lool la gars yi teg fii so loolu war na leen ne gars yi ñu ngi try pour startaat pour build seen ah, néeg bi yéen mi ngeen xam ne yaa leen nekk di ñu déglu fii si Gambian Talents Promotion soo leen amee anything pour dimbale gars yi war nga leen naa mun a dimbale ngeen ah, try pour ñoom tam ñu mun a sampaat seen néeg mu mel nu meloon wala mu mu gën a daaxa nu meloon nañ dem si gannaaw ñu seet place bi naka la mel pour yéen ñuy seetaan ngeen mun a gis lu def fi mu nekk daal gis nañ ne ñoom si ah, defar ay bloc lañ nekk te eh, seen wanag baa ngi mel ni yëpp a yëpp a daal bagages yi fii daal bagaas yi yëpp a seen bagages yi dara génnul si waaw soo léegi si loolu la nekk nii ñu ngi xam ne bu ñu dee GoFundMe account bi am na nit yu bari yu leen dimbale ñu nga xam ne donate nañ 5000 500 dollars ba pare. am na ñu nga xam ne balaa loolu sax ñëwoon nañ fii si kër bi dañ dee gis ñu nga xam ne ñëwoon nañ fii ñu nga xam ne bokkuñ ak Gambian Talents promotion ñu ñëw pour jàppale gars yi soo ñu nga xam ne ñëw nañ ak Gambian Talents promotion ñëw nañ pour jàppale gars yi ñu ngi leen a si ay si lu rafet li ngeen def because lii mun naa dal ku nekka ah nekkul ne comme ñoom ah, la yàlla natul lii waaye mun naa dal ku nekka right now tamit ñu ngi xam ne seen broda bu nga xam ne moom moo lafoon kër bi mu ngi on a fast bi ba léegi so ñu ngi la naan alright ñun xam ne ne seen broda bi nga xam ne am um, dañ la bëgg a laajte sa sa broda bi ku nga xam ne moom la moo lakkoon kër bi right now si fan la nekk waaw boobu ah, mu ngi woon si loxo police yi waaye après déggoon nañ ne daal ñu ne mu ngi ribaan ñun loolu rek lañ si jot am Sometimes uh, we remind them anyhow. Oh, okay. Yeah. So yeah, right now, sanity fan la gay neka because kom ka building bi yeb yaaxu na. Té sa fi rek fi neka bu ñewon fekkon nañ fi ay ñeneen nit waaye té fekkul ci gaay. So ñom sa gaay sanity fan la gay neka. Wa ñom ñi ngi am néeg fii nii ah, layout. waaw fii nii Dios Bank Dios Bank Dios Bank foofu noonu ol Dios Bank bi area boobu la nekkee man tamit man si fii laa nekkoon waaye man ah, locally man fii laa nekk si koñ bi fii nag laa am néeg benn sungur moom nii bu ma ren boobu foofu laa nekkee nii man ma yee maa day ñëw nekk ak safil fii nii si kër bi ba pare di xool gars yi ñuy muul ak yooyu noonu xam nga ñuy supervise ok comme boo koy noonu leen ko déggee rek seen famille bi ñeneen ñu ngi luwaas loolu moom miin ne nee seen kër bi pare taxaw si jaama ñoom ñëpp dellu si waat fii parce que ñun ñëpp xam nañ ne luwaas métti na trop yombul te si seen situation bu gaay nekka ni war di fay luwaas bugg a sampa seen néeg bi soo leen amee anything pour dimbale gars yi ngeen try ngeen dimbale leen pour gars mun a risaat seen néeg bi tout le level bu mel bu meloon daal so ah, ñun waa Gambian Talents Promotion ñoo fi doxantu si woon rek pour seet place bi nu mu comme nu ma ko gisee woon bu ñëwoon fii place dafa gënoon a garaaw waaye sant yàlla bu baax bu ñëwee di time around ñu ah, a ah, yi nga xam ne ni a ah, dëkkandoo ren da ngaa gis ne bagage yi ngeen fi fekkoon ni yëpp yàlla ak ñoom ñoo ñoo ñëw jàppale ñu si ñu clé fii nii yëpp ba nga xam ne moolkat yi bu ñëwee sonn sax pour mool soo ñoo tamit ñu ngi a gërëm bu baax a baax dëkkandoor moom xam nga dëkkandoor moom aaxala moom lu si yàlla wax dañ naan dëkkandoor moom mooy sa mbokka so ñoom tam ñu ngi leen a gërëm bu baax amun seen fa ak dëkkandoor yi yëpp fii nii kon ñun ñëpp ñu jàppa tamit ñëpp ah, bu di xaponee ñëpp ñi ñoom ñoom di indi seen bool yi añ yi lu nekk moom ba ba tey jii tam seen loxo jugut jugut jugut fii nii si kër gi daal ñu ngi leen a gërëm bu baax di leen sant yéen i tamit ah, ñu ngi a sant bu bu baax a baax si seen initiative bii nii ah, di wax ne seen Gambian Talents bi yàlla na dem ba doo ba doon télé incha allahu rabi yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def waaw ah, di leen gërëm di leen ngeen góor bu baax rek incha allah yàlla baax na. amiin jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf ah, fi mu nekk nii dinaa dinaa la laajte naka la procédure bi mel Gambian Talents Promotion ñan ay yan façon nit ñoo leen donné pour ñu mun a aaga fuñu aaga fii tey. waaw jërëjëf euh, Mariétou euh, comme rek nuñ ko waxee den set up li nga xam ne mooy GoFundMe account si Facebook bi euh, moo taxit nag ñu génn ku wax nit ne am na kër bi nga xam ne mu ngi fii si pipeline tey dafa laka te gars dañ ñit ndimbal suñ GoFundMe bi si leen ko ubbi buñ ko ubbee nag ñu dugal ko si biir Facebook bi di nga gis ne xaalis bi and everything loo gis rek si biir lu luñ indi fii tey yëpp a ngi foofu ci biir Facebook ñun Gambian Talents den mu leer parce que nit su amee euh, problème yow yaa ko war a jàppale instead nga koo xañ kon ñu ngi ñaax Gambien si yëpp ñu ñëw jàppale ñii euh, comme ni ma leen ko waxee képp koo xam ne jël na dalasi dugal ko fii ñun sa dalasi boobu indi neen ko képp koo xam ne indi nga million sa million indi neen ko fii Gambian Talents comme ni ma leen ko waxee Facebook page bi mu ngi foofu noonu ku képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg a euh, donate ka famille bi mën ngaa donatal gars yi Mariétou xam naa ne ñu bari dinañ laajte ñan ñooy Gambian Talents waxee woon rek Gambian Talents ñu ngi start since 2006 ba léegi ñu ngi ci um, Gambia bi ñu ngi liggéey suñu office bi mu ngi foofu si Amérique si Seattle waaye fii si biir Gambia ñu ngi béy suñu wareef am fi suñu office nit yu am problème o nit yoo xam ne dañ need help dañu dee ñëw wax moo tax ñu set up li nga xam ne mooy GT foundation bi si biir foundation bi leen dee ñëw di dem seet nit yi nga xam ne am neen maanaam loo xam ne bëgg nañ ñu saafara ko Euh, ki nga xam ne nag mooy suñu maam Maska fii këram la euh, yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan jàppale leen gars yi su ko defee rek nga gis seen building bi nu mu meloon mu mel lu ko raw comme nu ma koy wax rek euh, he who feels it knows it waaye believe naa ne lii tey vidéo bu ñu def nii. ku ko gis rek xam na lu ñuy wax lii métti na lool lool lool nga nekkoon si sa këri boppa mënatuloo nekk sa këri boppa ngay dem si këri nit te xam ne ne dëkka dafa naxari fu mu nekk nii rawatina nag biir Gambia ah, ku nekk mu ngi toog si biir këram ñu jàppale ñu ñoom ñu nekk wati si seen ah, ah, kër bi comme ni ko gars yi buggee nu ko nu mu meloon ñu leen a jaajëfal bu baax a baax di leen ne nag duñ am fii rek ngeen toppa ñu style dineen amaat beneen live vidéo bi nga xam ne dañoo dem suñ bunti office def fa yeneen liggéey yi nga xam ne maanaam doon joxe charitable euh, naka la euh, projet leen fa am ku dimbale yeneen askan. Mhm. Euh, am fa ay yére yoo xam ne foofu free la dañ koo teg si biti képp koo xam ne dafa romba rek mun ngaa ñëw jël benn mhm. soo Mariétou Gambian Talents yi rek la mënal askan bi ñun emun rek. si toog di indi nit yi euh, li nga xam ne mooy euh, news mbete xibaar ñu noo mbete ñu ñëw euh, indil leen li nga xam ne ñu critique nit sometimes nit mu ne ah, mu ngi wax si government Gambian Talents dafa bëgg ku dëkk bi dem si kanam mm. lépp loo xam ne wax leen ko waxuñ ko because daf ñu neex dañ ko wax rek ku bëgg gis Gambia mu dem si kanam parce que Gambia ñu ñor moo tax ñu tuddee suñu bopp Gambian Talents promotion yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan right now nekk si diaspora bi ñi nga xam ne ñoo ñu donate ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu leen naa wax jërëjëf parce que ñit ubbi GoFundMe nga toog nga click nga ne man de dinaa suspend dalasi ñu ngi laa wax jërëjëf ñëpp ku lim juum yéen ñi nga xam ne yéen ñëpp sponsor ngeen ba te donate ngeen ba te euh, def ngeen si seen dalasi ba te kool ngeen rek ngeen siyaa naxar bi ñu ngi leen a wax jërëjëf am na ñoo xam ne nag ñëwoon turu os waaye turu os moom la gars yi amee fakka femme li ñu ngi leen a encourage yéen ñëwaat donate yeneen ak yeneen ak yeneen di leen jaajëfal di leen remind bu nekkee yaa ngi doog a seetaan indi neen fii euh, bidon ngi diwlin saaku liñoŋ saaku maalo Euh, saaku pompiteer waaw indi neen fi tamit ay euh, naka euh, soo indi neen fi tamit ay bale indi neen fi tamit ay yëre yi nga xam ne ñeneen ak ñeneen jàppale nañ ñu di leen wax ne rek Kah Family suñu Kah Family la te suñu family la parce que Gambie ñun ñëpp a ko bokk nañu gën a jàppalante di leen wax jërëjëf bu baax a baax bàyyi leen ak Mariétou rek. Well, waaw um, loo wax daal yow dafa mel ni jeexal nga wax bi Gambian Talents Promotion lii leen leen fi amal lii leen lii leen fi nekkee ñun nduroowuñ ak yeneen media house. ñun we are Gambian Talents Promotion we are different from all other media houses we come to Gambians and help them ñun dañ xam ka family bi nekkuñ family tey xam nañ papa Cheikh Maska ku nga xam jàngale na fi xale yu bari ba pare tamit si islamic um, ministry bi tamit set up na islamic department bu nga xam ne moom nekk the first person ku def loolu ba pare seen family bi dañ nekk a renowned family Mahawk tamit nekk na koo xam ne gis nañ nu moo dimbalee Gambien yi soo ñoom suñ amee naxar tey war nañ leen a mun a taxaw parce que ñoom dañ dee dimbale Gambien ah, Gambien si soo ñun daal Gambian Talent Promotion lii lañ leen fi amaloon tey si Kafamily bi ñu ngi leen a am seentu ba si kanam tuuti ñu ngi am lu ñoo def si suñ ah, office bi jërë ngeen jëf